ay de si la ñu koy wax kuy bàyyi soxna ay de si alaaji maalik alaaji maalik moo jur yaayam loolu dong laa leen di yëgal bàyyi leen ak li ci des am na luy luy bëgg a ñëw loo xam ni beneen conférence bu bees la te bari muccaat lool bari ndawal bari ñamar ñamar lool te mooy laaj ya tontu yi laaj yooyu ak tontu yooyu laa taqillu ahamiyatan an il muhadarati nafsiha gën la néew importance déglu ko gënu la suufe daraja déglu conférence bi ndax moom moo ciy tontu moom ki doon def conférence moo ciy tontu yàlla mi ngi doon wax ak nekk bennam ci diineem jooju la ñuy laajte te ñun ñi laaj yi nekk suñu kanam xam nañu toog déglu ko man njàng moo ci ne bu mu leen rëcc mukk yéen a ngi dégg taa'iyaam boobule muy wayam wi wayam wi mu way mu mel nii tey jii la woy wi juddu maanaam tey woy wi ni mu maase ak jamono maa ngi ci toujours rek noo mel yàlla baaxee la ko nga jéem ko melal sa doom mooy ndekete xam dong doyul da ngay xam li itam waxuma ko ngir na ko neex leer na yàlla moom it foog na ni loolu ma wax dëgg la yàlla moom xam na lii ma wax dëgg la mooy mécceem huwa annahu min ibadillahi alladina tasaddaw li binaa'i jiilin qur'aan yi bokk na ci jaami yàlla yi nga xam ni dañoo jóg jigéen yi xale leen yàlla téeñal na dinañu tabax benn génération benn maas bu alquran maa ngi koy wax ngir yàlla kese li mu wattuloo ci ay doomi aadama bu diitoon comme yow diitoon la ñuy wax bi bi bi bi ñuy demandé suuf bu paanee ñu mën ko puus mu tàkk mën nañ koo puus départ loo kon li mu wattuloo ci ay doomi aadama ñuy jàng alquran nu mel nii mu koy jàng waxuma ko ngir na bët dama leen koy wax ngir ngeen xam ne loolu war na leen kenn ku
ndax ñu ne naa taxaw bi sànni benn kaddu gannaaw lu ñu yendoo déglu kan ku mën a bi sànni kaddu waaw li ma leen di bëgg wax lu gàtt la subhanahu wa taala dafa am benn aaya ci teeram bi bi mu bi mu mu indaloon bi mu indaloon teere bi day fàttali li sunu doomi day ji yendu fii di ko wesaare ci ndànk ci teey ci lu dégul loo xam ne képp ku ànd ci xelam soo ko déggee da nga koy mën a comprendre suñu borom mu ne inna hada la dicra liman kaana lahu qalb aw alqa sama wa huwa shahid lii alquran bi la li sunu doomi ndey bi yendu fii di tasaari yëpp dicra la pour nga fàttali ko fàttali ko sa bopp yow ma yaay kan foo nekkoon balaa nga ñëw fii ku la indi fii lu tax mu indi la fii indi na la fii yaa ngi dox fu mu la jëmee soo demee foofu après la fa nekk mooy lan nga fàttali ko loolu sa bopp nga fàttali ko ku la indi fii lu tax mu indi la fii lan lu la digle nga jéema ci def loo sa camtalaay kattan nga def ko ci ittaqullaha mastadaatum waaw waaye mu ne nag lii dana jëriñ dana nekk ab fàttaliku waaye ci ñaan koo xam ne waxtu muy toog fii di déglu suñu doomi de bi yaa ngi fii yow ak sa xel yëpp da nga nekk fii da ngaa ñëwoon ngir yàlla di bugg a déglu lu waa ji di wax nga déglu wax ab xel xel bu dal xol bu ubbeeku nga déglu ko soo defee noonu sunu borom dina la ci jëriñ liman kaana lahu qol borom xel moo koy jëriñoon a lahu qol aw alqa sama koo xam ne sunu borom may na la ab déglu nga déglu mun nga ràññi li ngay dégg ah yaa xooyo ah du li ngay dégg yëpp rek nga comprendre ko déedéet lu li ngay dégg comprendre nga mun koo jëriñoo kon nag li ma bugg a wax mooy ñun ñëpp nañu jàng faatiha julli ci yonent bi salawaatu salaamu alayhi ñu ñaan lu ñu déglu fii tey yàlla nañu yàlla war sëkkal war sukk bu toll na ci jéem koo jëriñ bii benn ñaareel bii moom sunu doom dem le na ngeen ko ñaanal ñaanal yàlla na yokk sunu fan yokk fanam yàlla na yàlla def barke ci fan yi mu sawarloo ko ci lu muy def pour mu def ci réew mi dara su du loolu passé yéen doomande yi waaw est-ce que jotul dëgg moolu de est-ce que jotul lu lu toll na tey ci Sénégal ñu toog fii amuñu ku ñuy laaj ci diini ku nekk xam nga xaw ma nan la tudd ku nekk di nekk ci appareil rek ku nekk di wax ci diine bi lu ko neex man li ma leen di ñaan mooy yéen kilifa yi ak yéen sunu doom de yi nañu boole sunu bopp ñu dajale jàngkat yi réew mi ñu tànn ci kenn koo xam ne dañu doy ñu jiital ko islam bi mu nekk sunu mufti ñu aw ci garaawal ndax xam ngeen ne ma al asaf waaw dafa na xari lool mooy lan sunu doom de bi wax na ko lépp am na fi njaati gi lu dul islam rek lépp am na fi njaati gi lu dul islam rek ku demul daara jàngewul fenn takkara jam ci mbedd mi di wax rek loo xam ne soo ko déggee yow da nga ci am bakkaar waxatuma moom kay waaw ana kuy wax déet waaye nañu dajale suñu bopp ñu seer kuy wax déet waaye yenn ci gëm yi nañu leen korose ku waxul yàlla yem na korose gëm yi loolu laa wax kon nag nañ jàng fatiha julli ci yonent yéen bu ñu waxoon lii a'uudu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم الهم المجيد لا إله إلا الله العلي الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض السبع ورب الأرض الكريم اللهم إنا نسأل موجبات رحمتك وجاء مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا في صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين بارك الله فيكم
ci teewaay bi jëm si ci ustaz Abdul Aziz Mohammed Hadi bu njëkk bi danaan lan mooy atteb ñi dem ci ay bàmmeel di fa sànni alal waaw ndax ñi koy def loolu dagan na ci ñoom ñu ko fay jëlee di ko lekk ndax loolu lew na laaju ñaareel bi danaan dégg nañu ni nga waxee tiiti bis penc ma waaye ndax ki am bàkkaar maanaam ki doon tooñ yàlla ki ko daawul tooñ ñoom ñépp ñoo ko yëgandoo wala luñ cay ëppalante bi danaan jullit nan lay tànne soxna ak nan lay yare njabootam billahi min alshaytan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله maanaam wax gunu sàkk gunu sàkk ci mbokk yi ñu doyloo ni ci laaj yi ñu joxe ba tontu ko ba noppi du caa génn falang laaj yi ci des yi ñu bindagul yi ñu joxagul waaye rek bëgg mu gën a leer ci man moo tax daanaka sax suñu mënoon di joxe ñeenti laaj bàyyi ma tontu ñeenti laaj yooyu ñu joxewaat yeneen ñeenti laaj bàyyi ma tontu yooyu ndax mu gën a leer rek laaj jublu incha allah waaye lépp loo xam ne waxtu bi maye na ko te sunu xam-xam tam àgg ca nu mokkal ci nas min alquran aw aw sunna man cee wax loo xam ne lii lu wér la incha allah ah duñ ci nay incha allah bu dee lu nu xamul lit duñu rëy ne xamunu nangam xam nañ ne amunu xam-xam fàttiwun li sunu borom yàlla waxoon maa utiitu min al ilmi illa qalila mu nga kenn joxu leen ci xam-xam lu dul tuuti mu nga fàttiwun itam la baykat bi wax la waykat bi wax qul liman yaddaci ilman wa maarifata alimta shay'an wa fatat anka ashyaau boo fi gisee koo xam ne kii ma ngay jaay xam-xam nee ko dangaa xam lenn ay yëf yu bari réer la kon nag xam-xam melokaan la ci melokaanu sa borom yàlla yàlla rek mooy alaalim yàlla rek mooy alaalim ak doon borom xam-xam melokaanu jëmm la ci yàlla subhanahu wa taala mu ngoog réer di melokaanu jëmm ci doomu aadama réer melokaanu jëmm la ci doomu aadama su ngeen déggee borom aadama bu ñuy tudde doomu aadama bu ñuy tudde borom xam-xam bu ngeen déggee nit ku ñuy tudde borom xam-xam ku réer la ku yàlla suturaal fab mbubu mu xam-xam solo ko waaye xam-xam moom yàllaa ko am ci moom la tàmbale ci moom la yem la alim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana laaj yi itam ñetti xeet la ci ni ma seetloo gën laaj boo xam ne dafa jëm ci mu xaar ci ci waxtaan wi amal na njëriñ ci wàllu jëf amal na njëriñ ci wàllu jëf te jëm ci aju ci waxtaan wi kooku tontu gi daanu ci def suñu kem kattan fu ñu ko xamul it ne xamuñu ko xeetu ñaar la mooy laaj boo xam ne bii jëf da cee ajuwut kooku itam daanaka sonn ci ajuwu ko laaj boo xam ne bii jëf ajuwu ci laaj ñetteel bi mooy laaj boo xam ne bii nas min al quran maanaam aay aar da cee ñëwut boroom xam-xam yi def ci ijtihaad werante ñii wax lii ñii wax laa su ñuy waxee lii ñii wax laa ñu bëgg ma farak kenn ci ñaari mbooloo yooyu du ma ko nangu du ma ko nangu damaa bëgg doonu jullit buy wax ak jullit ñi ñëpp jullit ñëpp di ma déglu ngir yàlla ma leen di wax yàlla ju dara raxu ngir ma man loolu nag damay moytoo jàng jëm ci mbooloo mii mbaa ca mbooloo mële te lu ma mokkal aaya wala xadis lu ma mokkal aaya wala xadis wala ijtihaad bu wér ma mën koo wax loo xam ne borom xam-xam yi dañ cee werante ma bañ caa wax wala ma leeral leen ne borom xam-xam yi ñoo ci werante kenn ku nekk tànn yi la ko neex ci kaw yooyu mabaadi insha allah taala ci laay tont léegi su ma noppee mbokk yi dolliwaat insha allah ba waxtu wi jeex wala ba saa bu ngeen noppee ci man man jaamu yàlla laa jaamu diina ji laa mu ngoog surgëb ku bëgg a xam ci li ma xam laa feek ni nga koy bëgg ngir yàlla rek li ma xam nag bariwut bariwut aywa bokk na ci laaj yi nga xam ne rot na fi tiitum yowmal qiyaam yowmal qiyaam am tiit dafay am moo xam ne sum borom yàlla mi ngi wax tiit ma metti waayam mu ne wa tara nnaasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakinna azab allahi shadid wala sax la ko jiitu yowma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu dati xamlin xamlaha wa tara nnaasa sukaara wa ma hum bi sukaara walakin adab allah shadid borom yàlla mi ngi ne misaal tiit mi am yowma alqiyamati aw méttiwaayam mu ne bisa ngoog bu metti bu tiis bis boo xam ne bii ku ëmboon la nga ëmb dana aworte ku doon nampal da nga fàtte sa sa doom ji nga doon nampal ndax tiit da mel na xol yi dafa génn ba ñëw ci put yi nit ñi dañuy mel ne ñu mandi boo leen xoolee te mandi wuñu waaye mbugalum yàlla moo metti yàlla na yàlla yërëm ci bis boobu waaye ndax tiit mooma daa ñu ci ëpplente am ñépp a ci yemle loolu wóorul boobu laaj mënuma koo tontu mokk lu ma aaya mokk lu ma xadis bu ci jëm te demaguma yebal xam ba xam ndax dana am ñëppante ni déet ala kulli xaal ñi nga xam ne ñii daal dekki nañu ay malaaka gàttandu leen yóbbu leen ca keroog arash dana am suñ borom yàlla maanaam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam da nga bokk ci ñuy toog ca keroog arash yeneen ci yàlla boole mën na noo am yaakaar na daal yamal qiyaamati kenn ca naaj wa ñaq wi di sàpp-sàpp di sotteeku ak kenn ca ker ga kerug arash mën na noo yaakaar ne ñoom ñaar seenum tiit mën naa wuute ka dekk yowmal qiyaam tam paralysé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku am ñaari soxna wala ay soxna di jàng ci kenn ci ñoom bu yowmal qiyaamate boo dekkee da ngay paralysé sa gën a wet day dee ka dekki paralysé it xam ngeen ne dana amum tiit moo tax ba am na ñu nga xam ne ñii danañu tiit bu baax ka dëkk itam yem ca ka mu doon àndal topp ci moom di ko topp moo xam kooka day leader politique moo xam day chef de service moo xam day ab xaritam moo xam day ab sëriñam ndaxte moom mi ngi jublu rek képp ku topp woon suñu borom yàlla ngi wax ci suuratul baqara id tabarra alladina tubiu min alladina tabacu ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة bis boo xamee ni bi ñi doon toppee dañuy deñ déedéet ñi ñu doon topp ñi ñu doon topp dañuy deñtalu ci ñi leen doon topp bis boo xamee ni bi ñi ñu doon topp dañuy génn dañuy deñtalu dañuy dégager seen responsabilité ci ñi leen doon topp itabara alladina tubiu min alladina tabaru ngay topp nit ci àdduna àllaaxira jot ngeen gise mu génn ci yow moom mi nga doon topp mooy dëkk a génn ci yow du ma fàtte mukk sama baay ba alxaaji haadi yàlla na ma ko yàlla fayal su ma daan firil aaya jooju daana ko faral di sara sara bu yaatu daana wax naan ci làmmiñam laa ko dégg mu ne da nga gis ab taalibe boo xam ne bii day gis ab sëriñam daal di noyewaat ca kaw daal di àgg bu demee ne ko sëñ bi tey rek laa doon doye de tey jii rek laa doon doye de su ko defee sëñ bi ne ko xam nga lu mu doon man sama bopp laa tal kat taluma la tal bi ne ko ah sëñ bi nga ne lan mu ne waaye xam nga lu mu doon bàyyi fi wax caaxaan yi fii ci fii fii di place caaxaan tal bi ne sëñ bi yow yow mi nga xam ne foo mos a woo mbayum tool ma bàyyi la sa tool foo mos a soxlaa xarum tabaski mooy it la foo mos a ñëw sama kër ma teg la sama kaw lal toog ci suuf ndax tey jii alaaxira ñëw nga déggoon ma àjjana tey jii nga naa ma taluma la sama bopp laa tal sëñ ba ne ko xam nga lu mu doon bàyyi ko wax caaxaan yi nee doo woon lu may taalibe bi daal dina taraw lii poñe sëñ bi poñe ba mu dëgër naka yow daal yaay dem si ñëpp xaj dëgg yow daal su ma xamoon ne daal di korpeñ korpeñ sëñ bi sëñ bi korpeñ ko wete mu fay nee na loolu ne maanaam wata qattaat bihimul asbab mboolem buum yi leen takke woon dakk ak taalibe su demee ba korpeñ sëriñam sëriñ ba fayu anam buumuk taalibe ko sëriñ dagg na loolu mooy ak sëriñ akuk taalibe gu jaarul ci alquran ak sunna jubluwuma ci weddi ab sëriñ man ab sëriñ laa am damaa gëmu sëriñ ci laa juddu ci laa nekk ba fii bu nekk am ndongo la ab taalibe la waaye nag sama sëriñ daf maa won ne ma yàlla kenn la mu la ñu war a jàmm Seydina Muhammad dong la sa war a roy sëriñ bi day jàngale la yàlla ko bi tam wax ñu déglu ko su waxee leen ñu ba ko fa kon taalibe ba nga xam ne nekkul woon ci alxuraan ak sunna dem ba àllaaxira door a ticci ko loolu ci sëriñam sëriñam xamal ko ne ko mënuma laa yóbbu àjjana boobee taalibe xam ngeen ne am njàq njàqareem dana tiis lool dana gën a metti ki nga xam ne kii ma nga ci naaj wa kon boog mën nañoo gis ne am na ay xeeti njàqare yu wóot yu wuute mën doon benn ala kulli xaal li ci doon neex mooy ñu mokkal aaya wala xadis bu ci wax mubasharatan tam bañu nekk masala ijtihadiya li nga xam ne lii moom la mbokk mu ci topp laaj te mooy ab julit nu muy tànne soxnaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ay ahadis bokk na ci ahadis ya fu mu waxe ne taxayaru li nutafikum fa inna al irqa dassas da ngeen di tànn fu ngeen di def seen ndoxum góor ndaxte jikko day toppe jikko day toppe mu ngoog wala fii danañu ko lépp nee nañu boo demee ci kër di fa bëgg soxna xale bu jigéen bi ngay bëgg soo rombee càmmiñam càmmiña xale bu jigéen bi ngay bëgg càmmiñ li soo ko rombee sa dooma ngoog bu la neexee ak bu la naqare loolu nuroo naag loolu al fa inna al irqa dassas maanaam nit day nuru ay nijaay kon nañu tànn sunu yaay doom feneen yonent bi ne iyaakum wa xadraa ak diman mu ngoog yonent bi ne na ngeen moytu gàncaxuk sën ñu ne ko yaa rasulallah luy gàncaxuk sën mu ne mooy jigéen joo xam ne boo ko xoolee dafa taaru lool waaye nag melokaanu baaxut mu ngoog juddu ba baaxut melokaanu baaxut bi maanaam jigéen joo xam ne taaru na rafet na waaye amul yarub islaam ne ko waaye jëkkeel diine moo tax ci beneen xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne dees nga tànn jabar ngir alal ju mu am nga bëgg ta am na it ñuy tànn ngirub taar am na it ñuy tànn ngirub juddu waaye yooyu jullit bi soo dee tànn da nga tànn jigéen ju am diine kon doo ñàkk kon nag mbokk mi ni ñu war a tànne soxna mooy nga seet jigéen joo xam ne ku am diine la yar nañ ko yaru diine yaru na ci milieu diine diine ma ngi koy jëfe nga takk ko ci alxuraan ak sunna séete ko ci alxuraan ak sunna ngeen jéem a taxawal famille islam ci alxuraan ak sunna amma li ngay yara sa njaboot nan nga yara nan nga war a yara sa njaboot loolu la wax loolu la ci teg mi ngi tàmbalee ci tànn islam daa bëgg booy yar sa doom nga tàmbalee ku ci tànn yaayam yaay ji doon ku am diine ku am jikko yu rafet ku fonk diine soo takkee soo xamee ne bi yéen a ngi ànd sëy na nga ñaan ñaan nga xam ne gii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kuy ànd ak jabaram na ko ñaan su ko defee boo dee bëgg ànd ak sa jabar ñaan ko yonent bi nee na ànd boobee bu ca bu ca doom juddoo nee na yàlla dina ko musal ci seytaan ñaan nga mooy allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtana yow yàlla yàlla na nga nu moyale ak seytaane te sëy bi ñuy bëgg a sëy lépp lu la ci wërsëgal ci doom yàlla na nga ko moyale ak seytaane allahumma jannibna shaytaana wa jannibi shaytaana maa razaqtana ñaan googu la yonent bi ne nañ koy wax bu ñuy bëgg a am rapport ak sunu soxna kon booy yar sa doom tàmbaleel ci tànn yaayam benn ñaareel bi teg teg di sëy ak yaayam aw sëyin wi alquran ak sunna jàngale ñetteel ba mooy soo xamee ni bii yaay ji ëmb na boroom xam-xam yi yu adduna yi dañoo wax ne jën yi maanaam ab liir ci biiru yaayam am na foo xam ne bu fa àggee ci màgg day daal di tàmbali di dégg li bàyyi li yaay ji di wax kon yaay ji na moytu ay saaga na moytu ay wax yu ñaaw na moytu musique na faral di déglu dégg alquran na faral di jàng alquran na faral di baril turu yàlla allahu akbar ak laa ilaha illallah ak julli ci yonent bi ci làmmiñam ndax yàlla xale bi jëkk dégg loolu su xale bi juddoo nanu delluwaat ñun ñëpp ci sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu jàngiwaat ngénte ñu ñuy ngénte ci Sénégal li ci ëpp jubut wut ay xar yu bari wala nag aw nag faf tant tant bu rëy géwél yi ñëw séri yi ñëw piis yi ñëw ngay xawaare ba ngoon yàq fa lu dul jeex ci ay junni wala ay million loolu du yoon loolu du sunna nañ leen delluwaat ci téere sunna yi ñu jàng sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ak ay saxaabaam nu ñu daan ngéntee nuy ngéntee noona sunuy doom loolu bokk na ci lii tax xale bi mën a baax xale bi saa xamee ne bi mi ngi tàmbali jàng wax su demee ba mën a wax na nga fexe ba mu jëkk a wax laa ilaha illa allah wala mu bokk ci muy jëkk a wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko santaane nee nañu fexe ba xale yi bu ñuy jàng wax na bokk ci baat yi ñuy jëkk a man yi leen di jëkk a sax laa ilaha illa allah te xamal leen tam lu mu teg te nga fexe ba laa ilaha illa allah jooju xale bi jëkk a wax nga fexe ba mu nekk ci néeg bi ci famille bi ci kër gi ci kaw loolu xale bi bu juddoo bala moo judd nañ ko waajalal néeg bi balaa xale bee judd nañ ko waajalal néeg bi xale bi bu mu judd mukk fekk ci néeg bi mbaa ci saal bi lu xaram xale bi bu mu judd fekk si ay statut statut dafa xaram photo boo xam ne bii photographe ko photo borom xam-xam yi dañ cee werante ñii wax nañ ne dagan na ñii wax nañ ne xaram na waaye photo boo xam ne dafa am jëmm amul werante ci na dafa xaram xale bi bu mu fekk statut mukk xale bi bu mu fekk ay bande musique vidéo wala kasetu magnétophone daf koy day tax mu yàqu xale bi na fi fekk alquran ju ñuy jàng suba ngoon na fi fekk ay waajuram fonk julli mu teel a dégg allahu akbar asalaamaaleykum ci baayam ak yaayam teel a gis julli ruko ak sujjóot ci baayam ak yaayam te fekk mënagul a wax loolu lépp day marqué ci xolu xale bi xale bi li ngay def yow mi baayam ak yow mi yaayam day marqué cim xelam fekk mënagu ko wax waaye mi ngi koy xam kon yow mi baayam ak yaayam yéen a war a jëkk a yaru yarub alxuraan ak sunna ngeen di jëf nag yar boobu mu nekk tatbiq xale bi di ko gis te fekk mënagu la wax loola di marqué ca xel ma ak ca xol ba soo xamee ne bi xale bi mat naa jàng rikk waaye bu ko yóbbu ci école nasaraan ku yóbbu sa doom ci école nasaraan yaa ko sànq yaa ko yàq néew ma ngeen yóbbu ko ca daara ja daara ju mel ne ji filmu njàngaan doon wane keroog ñeenti fan ci weeru avril daara yu mel noonu mabbu daara yu mel noonu borom daara ñu bisim bisim leen fudd seen ndigg moo ci gën te jéem nag xam ne ginnaaw ji daara baaxul école nasaraan baaxul li baax nag dañ ko war a amal na na wut ay jàngu diine kenn dina man damay toog rek sama doom ji dama koy téye ndax gisuma jàngu bu baax bu ma ko mën a yóbboo wut ko demal ci ki nga dé dendal kër ci koñ bi ngeen ànd seeti ki ngeen dendal kër ngeen ànd seeti ka ca sës ngeen bokk dajaloo waxtaan ne kat doomi jullit ñi suñu doom yi war naa am ku leen di jàngal fii di leen yar yarub diine te nañ moytu njàngale ma am te yar bañ caa ànd nañu boole jàngal xale bi ak yar ko yarub alxuraan ak sunna su ko defee ñu waxtaan ñoom waa koñ ba waxtaan ñoom jiiraani ñoom dëkkandoo yi fexe ba amal ab jàngu wut ab jàngalekat bu ñu mën a jubóol te nañu tànn jàngalekat ba ab jàngalekat akub yarkat des koy tànn ab jàngalekat boo xam ne bii dafa bëgg adduna addunaa ko tax di jàngale am na ñaari jàngalekat kuy jàngale ngir dund ak kuy dund ngir jàngale kiy dund ngir jàngale dundam gépp jàngalee tax mu di ko dund insha allah mën naa am boo demee mën ne la ah sa doom ji kat bala ma la koo mën a jàngalal da nga may fay téeméer dërëm par weer wala lu ma la wax loola da koy laaj ngir xam ne bu ko laajul du mën a toog jàngale wala ndéem da nga fay bàyyi sa doom dem daa xam ne bu la ko laajul sa doom day yelwaani te yelwaan moom dañ ko war a génn ci daal bu ko defee kon loola mu laaj ka ko jox matal ko ak ka jox genn wala ak ko joxewul dara ginnaaw moom day jàng day dund ngir jàngale moom bu xasee ba nangu xale bi rek bu ko xasee ba téye dina ci def lépp lu man bi kulli ixlaas ci sellal gu sellal gu ma sëkk ci wàllu jàngal ko ak yar ko kay jàngalee ngir dund nag la ko itteel mooy lañ koy jox xale bi mokkal wala mu ñàkk mokkal xale bi yaru wala mu ñàkk yaru itteelu ko li ko itteel rek mooy dërëm yi mu jot weer yu deewee nañoo xàmmee ñaar ñooñu koo xam ne kii day jàngale ngir wut lu mu dundee kooku ëpp naa jox sa doom wutal jàngalekat bu am xam-xam bu mën a yar bu yaru bu yaru bu fonk kitaab ak sunna boo xam ne ay pas-pasam wér na rafet na mu ngoog moom ci boppam li muy jàngale gëm na ko mi ngi koy jëf waaw am na xam-xam ba lewet na doonul ku xaabaabal ci bëgg àdduna doonul ko jaxasoo nguur ndax li yoon di boo xam léegi sallallahu alayhi wa sallam kookee ñu ngi wut jàngalekat bu mel noonu indi ko seen koñ defaral ko ab jàngu mu defa jàngale jàngale mu wóor mu ngoog su ko defee bu ñëwee ci kër gi yow waajur yi ngay toppatoo lam doon jàng ci jàngoo mu di ko jëfe ci kër gi su ko defee nga toppatoo bàyyi xel ci film yi nga xam ne moom la sa doom di seetaan ci télévision ma mbokki jullit yi am na ay borom xam-xam yu àgg ci ne jënd télévision xaraam na ne nee ñu ndax rek film yi muy génn am na ñu ne télévision jumtuwaay rek la ki ko jënd te mën a fexe ba lu xaraam bu ci génn dara néew ci waaye am na ñu ne fekk télévision ngi mel ni mel jënd gi xaraam na kon ñu ngi werante xaraam nag dagan na ndax li muy génn kon nag bu fekkee jënd nga télévision ci sa kër wala am na vidéo bul sàggan ba bàyyi ay cassette vidéo ak bandi vidéo ci kër gi xale yeeg jigéen ñi ku mu neex jël bande bu la neex teg ku mu neex at bande ci biti teg déedéet surveiller suñu rajo bi ak suñu télévision bi ku ko ubbi ci sa kër te surveiller woo ko dana yàq kër gi cinéma bi day yàq kër gi mbedd mi di yàq kër gi àndandoo yi di yàq kër gi ne wayjur wayjur yu bëgg a yar njabootam ci diine na bàyyi xel ci ñooñu yépp télévision bi bu tàkkee yow bàyyiwu yow bàyyiwu borom yow borom kër gi toogal ci wet télévision bi saa bu dee joxe ay xibaar wala muy wax ci diine wala muy wax ci wàllu xam-xam loo xam ne li ay document la yu yu mën a jëriñ ci wàllu xam-xam yi àdduna alhamdulilah su dara desut lu may nag ay fi caaxaan ay fecc ak ay tëgg ak ay film dynastie ak ay film yu bon galaas ak yu mel noonu nga daal di fay ca saasa ba sa waa kër tàmm fay gi boo xamee ne bii ay fecckat ak musique kat génn nañu fayal ci saasa soo bañee sag njaboot drogue boobu ñuy wax football jàpp leen itam saa bu ñuy génne match fayal say doom tàmm di seetaan film diine ak film yu